donc euh, dañu fi ñëwoon tey euh, teewal fii maire Daouda Niang maire ville bi pour euh, donc ñu jox ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore njàng mi fii ci Tëngéej li nga xamante ne moom mooy ay cahier ay craie ak ay matériel géométrique dañ koy faral di def at bu jot tey jii nag ñu ñëw feddali loolu donc moo tax ñu ñëw tey jii donc remettre symboliquement matériel bi nga xamantene buñ ko xayma dem toll na ci 12 millions ak lu tek pour jox ko inspecteur bi nga xamantene mom mo fi nek di Lamane Diouf di ko remercier au passage ci liguey bi mi def legui nak matériel bi eh, donc dañ ko jaklel établissement yi nek fi donc eh, pour que njangale kat yi ak ndongo yi e meuna liguey ci condition yu yu bax la legui nak deuxième vague bi ñëw na ci 2021 bi ñu ngi ci xalaat pour eh, fexé ba outal établissement le maximum de masques donc doté leen pour que kat yi ak ndongo yi meuna a ci condition yo xamantene ne bi du def ci ñom ay effet grum maire grum représentant bi mu fi envoyé euh, ndax action bi mu fi def action bi mu def xam ngeen ne ak wul ku la jox matériel bo xamne ne estime nañ ko valeur 12 millions nga xamne ne du lu touti ñu gërëm ko ci te ñaan également mu continuer diko quoi def def bi bañ yam bi parce que école day continuer te xam nañ ne développement réew moom ci école ci njàng la mën a jóge wax naa directeur yi ñu bu ñu ko jotee wax naa c'est-à-dire du matériel bi déjà comme cérémonie bi pare na à partir de tey wala ci ngoon euh, jël dale ko tey ba suba na jéem a def lépp pour matériel bi egg ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko jagleel ñi nga xam ñoom lañ ko jagleel mooy ndongo yi bon ci loolu maintenant xëy na école yi école publique yi la mais comme ni ma ko sànq rek école publique amna école privée amna mais amul élève privé ak élève public ken xamul ëllëg ak si biir ñiy jiite réew mi nga nek ci xëy soit école bo nek doomu Sénégal nga euh, ñun bu féké dañuy assister ndongo yi élève yi mën nañu baña def xaj ak seen maintenant mën nañu jox priorité bi école publique mais téréwul tamit école privée lepp lu ci waay mëna am di ko ci am inshallah